fayee dafay jël facture bi envoyé ko Apix Apix fay ak suñu xaalis loolu mooy scandale économique bi dans un sens positif SETER dafa war a gagné xaalis ci marché boo xam ne joxuñu ko ko dans un sens négatif Sénégal dafay am ay déficit déficit boobu moo indi le scandale fiscal tey moom dafa bind son ministre des transport son ministre de tutelle ministre de tutelle am bind ministre euh, des finances ne ko ñun kat dañoo am problème parce que waxtaan ba ñuy waxtaan ak SETER dañ ñi la ñu war a fay or taxe la man dund naa cas bu mel noonu personnellement signé contrat kenn préciser wul taxe yi kan moo koy fay nga pare négocier pour xam kuy fay taxe yi. tax yi c' est du contribuable sénégalais bu ko SETER fayee suñu alal la ñun mais puisque ñoom ñemewuñu affronter SETER SNCF RATP ak tubaab yi ñu bind. ne nañu modifier suñu code des impôts modification laa la wax de premier élément bi ni c'est pour six milliards parce que taxe yooyu 6 milliards la ñooy 6 milliards yi xamuñu ñoom fan lañu koy jëlee ñu bind c'est un scandale cest à que changer le code des impôts du Sénégal parce que ñoom amuñu xarañ ba ñuy négocier ak SETER donc sa carence yow da koy jël porteloo ko le contribuable sénégalais ñu changer suñu code des impôts changer suñu code des investissements ci biir scandale fiscal boobu te loolu ministre des finances ñun ñu ngi xaar réponse bi ñun ñu ngi xaar réponse ministère des finances normalement demande d'exonération boobu warul jàll xam nga lu tax loolu tam ci ñàkk xarañ parce que dañu bind ministre des finances non je termine par le contrat si ministre des finances dañu ko bind ne ko euh, da nga ñuy wàññil TVA bi yóbbu ko 10 pour cent exonération parce que SENTER boo ko deful loolu du am équilibre financier parce que dañu war a fay les charges d'exploitation à SETER qui est une société privée alors que loi communautaire boobu dama leen wut ay juriste ñu leen di bindal loi communautaire boobu ba muy wax ne exonération UEMOA bi mën na jóge 18 pour cent ba jëm 10 pour cent dafa lim ay secteurs yoo xam ne daf ci bokk dont le tourisme parce que ñoom seen argumentaire ñu ngi naan puisque tourisme am na ñun dañ ko war a am alors que UEMOA accordé na ko tourisme mais secteur des transports bokkul ci toujours ci déficit boobu ñu war a gérer ci montage financier bu baaxul bi tey def nañ ay évaluation yoo xam ne chaque année parce que charge d'exploitation SETER dafa bari chaque année gouvernement du Sénégal dina fay entre cinq et huit milliards à la SETER pour couvrir le déficit xam nga loolu nan lañ ko contrer en deux mille vingt c'est monsieur Omar ministre ñun deux mille vingt wala deux mille dix neuf je me rappelle plus. dañu dem dem leen vérifier li ma leen wax dañu créer un fonds xawma lan routier terrestre et cetera. faire ci exposé des motifs bi di nga ci gis loolu. loolu dañu ko créer parce que ñu ngi anticiper ci les éventuels déficits boo xam ne terre bi war na ko am SETER bi nga xam ne dañ ko may contrat du leen ko baal ñu war a jëlee foofu cinq à huit milliards par année donc tous les déficits cumulés. lié au fait que dañu leen xoj parce que mënuñu ko changer ñoom dañu bëgg forcer ñu changer leen ko changer suñu code des investissements changer suñu code des impôts fi may terminer mooy contrat bi le problème mooy scandale yi may wax yooyu yëpp li ko gën a garaaw mooy ñoom lañuy def ak SETER dañu amul droit def ko ak SETER parce que protocole yooyu ma lay wax boo ci jógee ñoom moom mii directeur général u xam naa ne moom dinañ ma yóbbu police tey dina directeur général seen moo bind DCMP <coughs> direction centrale des marché publics le 17 décembre matagul un mois fekk ñu ngi parax parax yi parce que ñu ngi bëgg a defar terre bi DCMP jot lettre bi le vingt 23 avec beaucoup de diligence ñu répondre leen le 23 décembre moom mii moo ne directeur bi jox ma autorisation man seen terre ma signé contrat ak SETER te contrat boobu boo ma koy signel da nga koy def entente direct moom moo demandé loolu au nom et à la barbe des Sénégalais pour donner un marché boo xam ne potentiellement mën na def trois cent milliards sur les cinq ans ba muy demandé argument boobu moom mii dafa ne waa DCMP li tax ma bëgg ngeen defal ma ko entente direct parce que lii exploitation terre bi dinaa ci ñëwaat ñii rek ñoom ñoo ko fi mën juum na sax ci libale bi parce que bu ne sax ñii ñoo ko fi mën ci àdduna bi ñu mën a xalaat mais mu ne non seulement ñii rek ñoom ñoo ko fi mën mais ci biir France ñii rek ñoo ko fi mën lay euh, billet boobu wane ne dig ba ñu digoon France mhm. ci lañ nekk ba léegi léegi ñu ne dsmp donc boo wëree parce que loolu mooy en loolu mooy condition ñu defal la contrat entente directe DCMP ne leen loolu mënul ne te entente directe même boo koy def beneen scandale en tant que rek même boo koy def di nga defar quand même un dossier ci dossier yi nga def cahier de charge ne lii laa bëgg. ak lii ak lii boole ci projet de contrat proposé ko partenaires yi. travail boobu moom directeur général SETER defu ko ba ñu demee ba affaire yi jegee ñi ñuy parax parax yi waa SETER ñoo leen defal proposition technique ak financière loo xam ne ñoom ñoo ko waroon def ba SETER defee proposition technique ak financière gonfle charge yi. ci la ñu commencé tiit parce que xalaatuñu woon ne SETEF dina yegg foofu ak ñoom DCMP ne leen lii ngeen di wax. mënul nekk entente directe. Mm-hmm. Mm-hmm. le 23 décembre laa lay wax de. c' était à quatre jours de création euh, de de de de exploitation terre bi mu ne leen mënul ne léegi li ma gis affaire mage lay gën a nirool mooy la ma waxoon puisque seen SETEF defu ci xaalis Sénégal moo investir lépp. boo leen bëggoon peut-être waroon na mën a nekk contrat d'affermage mais puisque da ngeen bëgg avancer ak entente directe loi LPP bu bees bi nga xam ne ça date de mars 2020 bi bu dee ci lañ ko bëgg a dugalee dafa am ay condition foofu am deux problème maa ngi terminé. foofu am deux problèmes mhm. problème bu njëkk bi mooy loi bi nga xam ne mars bii passé la am 2021 mënoo ci sukkandiku. pour permettre SENTER mu signer contrat ak SETER sur la base de ay protocoles yoo xam ne ça date de 2016 la loi ne dispose que pour l'avenir mënoo profiter parce que am na loi bu bees ñii commencé nañ pré-exploiter nee nga yéen ngi liggéey ba léegi sur une base illégale nga profiter ci loi boobu pour couvrir njombe yi nga xam ne yëpp moom nga def loolu mooy benn. mais deuxième bi DCMP def leen leen loi boobu même bu doon da ngeen bëgg da ngeen ci bëgg dugg man maa jàpp ne dañuy forcer pour bëgg ci dugg dafa am ay préalable préalable bi mooy yéen SENTER di ngeen def seen évaluation technique. SENTER defu ko directeur bu deful site internet depuis xaw ma ñaata mois du def évaluation technique. deuxièmement même l'offre technique bi nga xam ne SETER moom lay indi da ngeen ko war a évaluer boo leen ko évaluer dañu créer benn structure bu bees bu sàpp ki tuddu UNAPP. au niveau des partenariats public privé ñooñu dañu war a jël ñaari dossiers yooyu def ko contre expertise joxe seen avis consultatif bu ñu joxee seen avis consultatif ñu saisir ministère des finances pour xool est-ce que équilibre financier bi am na mhm. dans le cas actuellement amul en plus ñu dem ci ministre de l'aménagement du territoire du territoire donc loolu DCMP mu leen ko wax le 23 décembre ça fait deux semaines boobu ba léegi amuñu contrat léegi si tu tiens compte du fait que protocole bu njëkk bi mhm. diggee la du kon protocole deuxième bi diggé la du contrat DCMP y' a même pas deux semaines nee na leen amu leen contrat ba tey nii ñu ngi xeex di négocier contrat donc le gros scandale dans tout ça mooy alalu Sénégal jël nañ ko jox ko ay tubaab sur la base de yaama neex amuñu contrat amuñu dara am na nag yeneen éléments yoo xam ne bu ci tontoo dinaa ci ñëwaat bu ci kanam bu soobee euh,